bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala maa ngi tàmbali samay kàddu ci turu sunu borom di wax bismillahi irrahmani irrahim di sant sunu borom di julli di sëlmal ci ab yonenteem ak ñoñam ak i saxaabaam di ñaanu sunu borom gën a dolli yërmandeem ak ngërëmam ci Seexul Xadim te gën koo womatal lam ko tànnal ginnaaw loolu maa ngi nuyu waa daara ji yëpp nuyub islaam te mooy assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ñëw ak yéen ci seen sunu ñeenteelu jotaay ci waxtaan wi ñu def ci ar wirdul maxuus te ñu tolloon ci wird yi Sëñ Tuubaa jaaroon lu njëkk muy jot maxuus ñu waxoon ne wird yu mu njëkk a jot yu mu njëkk a jël mooy wirdu xaadir jële ko ci nijaayam jële ko ci baayam Maamoor Anta Sali Maamoor Anta jële ko ci Sàmba Tukulóor Ka mu jële ko ci Seex Sidiya waaye Maamoor Anta Sali jële ko ci Ibrahima mi ñu tuddee maam Cerno moom itam mu jëlee ko ci Seex Sidiya te waxoon naa lii yëpp nag maa ngi ci sukkandiku ci li sëñ Basiiru indi ci lenn ci binal baax xadim ak li Cheikh Mouhamadou Dagana indi ci téere bu ñuy wax an nubsatul mubaarakatu da nga fekk sax ci an al an nubsatul mubaarak Cheikh Mouhamadou Dagana wax ne Mamour Anta Sali mi ngi jëlee wirdu xaadir ci Sidi Daara ginnaaw ko mu jëlee ko ci ginnaaw bi jël na ko ci sàmmatu kóor ka ñett ñetteel yoon ba mu jëlee ko ci sëñ ci Cerno Ibrahima kon sëñ Tuubaa silsilaam ci wirdu xaadir ci wàllu Mamour Anta Sali yëpp dafay delluwaat ci Cheikh Sidiya waaye taxul lool sëñ bi yemul foofu sëñ bi jëlaat na wirdu xaadir nga xam ne moom moo ko jël boo xam dem ci alaaji As Kamara ñu am ñu ko xam ci alxaaji Ousmane Kamara ca Ndar moom itam mu jëlee wirdu wa ci Cheikh Sidiya sëñ Tuubaa jële ko foofu indi woon naa ko ak sëñ Musaa Ka wayem ci way ci marsiya borom daaru ma waxoon tamit tamit ne sëñ bi bi mu amee wirdu xaadir ci alhaaji askamara ci ndar teewul sëñ bi dem na murtani seeti àll Cheikh Sidiya fekk Cheikh Sidiya mag ma faatu doomam Seydi Mahmoud nekkoon fa faatu ginnaaw ko doom di baaba ak Cheikh Sidiya moo fa nekkaat sëñ bi sax fa ab diir jël seen secrétaire ya kon loolu it waxoon naa ko yaakaar naa maa ngi yemoon ak yow ci sëriñ bi bi mu demee ci Cheikh Baba ibnu ibnihi te mooy as Cheikh Sidi Baba ibnu Sidi Mohamed ibnu as Cheikh Sidil Kabir mu mag ma sëñ bi kii mu jëlaate ci moom wirdu xaadir mooy baabu wuldu Cheikh Sidi sëñ bi mi ko fekkoon fu ñu wax Maymoun muy ab teen boo xam ne ma nga nekk ca chimal la butu limite war a sorek butu limite lu xaw a toll ci quatre-vingts kilomètres kon mi ngi noonu sëñ bi sax na fa tàgg leen jël ñoom wirdu yi fa la sëñ Tuubaa waaye xasidaam googu ñu wax ak silsilatul xaadiriya sëñ Tuubaa mi ngi ko waaye foofu ca ci Cheikh Sidiya muy waaye woo xam ni sëñ bi saa tudd ak calalaam ci wirdu xaadir bi tàmbalee ko ci Cheikh Sidiya mi ngi ko jëlee ba ci Cheikh Abdul Xaadir Jilaani muy xasida gu neex boo xam ni sëñ bi mi ngi ko def ci juróom ñetti fukki bayit ak juróom quatre-vingt-cinq vers la xasida boobu kon fa la ñuy tàmbalee tey te mooy. kon silsilatul xaadiriyya foofu ci gànnaar fa la ko sëñ bi wooyee ba fekk boobu mi ngi ci Cheikh Sidiya mi ngi ci Cheikh Sidiya moo tàmbalee ci yàq xaalal faqiiru Ahmadul Mbakiyu anhu xafa wa rahima aliyu alhamdulilahi alladi lana jaxala silsilatan nanju biha inda alwajal sant yàlla mi nga xam ne moo ko defal silsila boo xam ne ci la ñuy muccee ci njàqare muy silsila bi nga xam ne ci la jëlee wirdul xaadir mu ne suma salaamaani ala muhammadin wal ali wa sahbi wa kulli muqtadin maadaama ahlul kasfi wal xirfaani toosilu saalikina birahmaani gis nga noonu la ko tàmbalee ba àgg ci fa wattu amri ilallahi albasir bi kulli abdin min jalilin aw xaqir mustaqiyan ilayhi بالتوصل بسارة القر ذوي التسلسل حصاه أن يجمعني في حزبهم يوم الجزاء منخرطا في سلكهم رتبتهم على تناسق كما تعاقبوا تسلسلا منتظما مبتدئا بشيخنا سمي خوز سمان جده الولي فقلت طالبا من الرحمن نيل الهداية مع رضواني بسيد الجميل مسايا بابا min kulli xayra bi liftih baaba mu tàmbalee ko ci Cheikh Sidi bi nga xam ne maamam bi nga xam ne mooy xawsu samaan di Cheikh Sidi Muxtaar bu mag ma moom lañ ko tuddee maamam li nga xam ne waliw la woon di xawsu samaan sëñ Tuubaa kon loolu la wax ci Cheikh Sidi mag mi ne xawsu samaan la woon xutbu samaan xawsu samaan la woon waliw la woon kon mu tàmbalee ko nag ci Cheikh Sidi moomu kon sëñ bi jël na wirdu xaadir ci baayam wax naa la bàyyi tamit ñetti yoon yi mu jëlee wutu xaadir yëpp yi ma xam mi ngi ko mi ngi delluwaat ci Cheikh Sidi Muxtaar mu jëlewaat ko ci askamara askamara ba tey foofu lay delluwaat waaye sëñ tamit jëlaat ko ci Cheikh Sidi Baba mii nga xam ne kon boo xoolee sëriñ bi silsila bi mu jëlee ci silsila bi mu jëlee ci Cheikh Sidi Baba mii ba ca Cheikh Abdou Khadir Jilaani ñaar fukki nit ak juróom moo fi moo fi dox Cheikh Abdou Khadir Jilaani ñëw di ñaar fukkeel ba ak juróom benn su ma ko bëggee indi ni ko sëriñ bi indee ci xasir yi day gudd waaye danaa tudd tur yi sëñ bi mi ngi jëlee ci Cheikh Sidi mi nga xam ne mooy jàmmil masaaya ku bari maya mu jëlee ci baayam muy ak Seydi Taqi Muhammad ku ragal yàlla moom itam mu jëlee ko ci baayam alxawsi gis nga bu tudd Cheikh Sidi mag ma sëñ bi baatam alxawsi la indi ki nga xam ne mooy xawsu samaan moo xettal jamono Cheikh Sidi ya mu jëlee ko ci moom itam alxalifatu rais Muhammad mu jëlee ko ci al aliyil muxtaar kooku tamit jëlee ko ci as sayid sharif ibnu najim kooku jëlee ko ci as sayidul amin an nadb kooku jëlee ko ci asayid rais ahmada kooku jëlee ko ci asayid aliin kooku jëlee ko ci asayid rafiix kooku jëlee ko ci muhammad al alam nga xam ne mooy samsul huda ku mu fi tudd da lay tàgg kooku jëlee ko ci asayid al xumaam ay alfayraami kooku jëlee ko ci sang bu sedd ba omar kooku jëlee ko ci sang bu sedd ba almaqil ya nafis kooku jëlee ko ci asayid suyuti imaamu suyuti kooku jëlee ko ci suyuti jëlee ko ci as-saali saali jëlee ko ci al ali ibnul arab kooku jëlee ko ci as-sayd tilimsaan kooku jëlee ko ci as-sayd musaddaali kooku jëlee ko ci as-sayd al-xazaali kooku jëlee ko ci sayd ali ash-shair bi taadali kooku jëlee ko ci as-sayd ali abdusalaam kooku jëlee ko ci as-sayd al-karim al-xaatim kooku jëlee ko ci as-sayd abi najib muhammad kooku jëlee ko ci asayid ibnu hita al ibd nga xam ne mooy fóore ba fóore ba kooku jëlee ko ci asayid al imaam al jili mi nga xam ne mooy xawsil waraa moo sëñ ba mu ci agsee ne summa bi sayid al imaam al jili xawsil waraa ijal nii fawqa jili sun borom maa ngi lay ñaan ci barkeb imaam ji nga xam ne mooy Cheikh Abdou Khadir Jilaani nga xam ne moo nekkoon xawsu xawsil waraa mooy xet la waa kon mu ne fi nanga ma def ma kawe sama maas man sëñ Tuubaa kon gis nga ñaar fukki nit ak juróom benn ci silsila boobu moom la sëñ bi nag bi mu agsee ci bàyyi si si Cheikh Sidi Cheikh Sidi mag ma mi ngi naan suma bi saydal xalifati rais muhammadin hëb li muhammadin hëb rabbi li naj lan nafis yooyu nag yaakaar naa suñu borom may na ko ay doom yoo xam ne doom bu ci ne doom yooyu ku ci ne da ngaa gànjaru kon silsila bi mi ngi noonu 85 bayit diggante sëñ tubaa fi mu jëlee wirdu xaadir Cheikh Sidiya ba ca Cheikh Abdou Xaadir Jilaani ñaar fukki nit ak juróom moo ci dox sëñ Abdou Khadir Jaani doon ñaar fukki kon mi ngi noonu sëriñ bi foofu la waaye as silsilatul Khadir indi calalaam ba ci as Cheikh Abdoul Khadir Jaylaani su ma juumoon bi sëñ bi di way lii du sori silsilatul Khadir bi du sori 1309 ci gàddaay gi du sori 1309 su ma juumoon. yoon wu mu njëkkoon a dem moom itam mooy ginnaaw ba waajuram wàcce liggéey ci ñeenti at yooyu dal mooy yoonam wu njëkk wax bii nag mooy yoonam wu ñu wax mille trois cent neuf ci gàddaay gi bi sëñ bi sañcee Touba ba am ñetti at ndax six sept huit neuf ñetti at jëm ñeenti at mooy yoon woowu bu ñu demee ci an nafaxaatul miskiya fi siiratil mbakki yi ci ab naaru gànnaar bu ñuy wax al alaama muam muhammad abdullahi ibnu ubayd rahman al aliwi assenqiti bind ko téeréem boobu ñu tuddee an nafaxaatul miski yi fi siiratil mbakki yi bu ñu ca demee ca paas 46 danañ ko fekk mu naan fastaxala bi turuqi ahli tasawuf axasa awlan awalan at tariqatal xaadiriya xan muridi seyxi siidiya sudaaniyun yuqaal lahu alxaaji kamara moom ni mu ko waxee sëriñ bi wird bi mu njëkk a jël sëriñ bi bi mu jàngee alxuraan jàng xam-xam ba àggal li mu njëkk a def mooy dafa yittewoo ci yoonu tasawuf fi mu ne tariqa bi mu njëkk a jël mooy ak tariqatul xaadiriya jël seen wird waaye moom ni mu ko indee sëñ bi mi ngi ko jëlee ci nee na nit ku ñuul koo xam ni taalibab Cheikh Sidiya moom la Cheikh Sidi mag ma nee na ñu ngi ko wax alxaaji Kamara kooku mooy alxaaji Ousmane Kamara bokkoon ci sëriñu xaadir yi mi ngi nekkoon ndar mi ngi gën a àddina mille huit cent quatre-vingt-neuf mille huit cent quatre-vingt-neuf ci la génn àddina borom an nafaxatul miskiya fi sirisil mbakk yi moom loolu la indi kon yaakaar naa loolu war naa leer kon mu ne bi mu jëlee wirdu wi ci ci bi mu jëlee wirdu wi ci alhaaji astamara alhaaji astamara moo ko jox ndigal ci mu joxe wirdu wi wa asna lahu fi ihtaaya lil muridina mu jox ko ndigal ngir mu mën koo joxe moo tax sëñ bi joxoon na wirdu Maxuus maam Cerno ni ma ko waxoon jotaay bee weesu te ñaanal ko ku mu ko jox mu am saxaada ku mu ko jox mu am xalqul xaada sëñ bi waxoon na loolu maam Cerno kon yaakaar naa foofu mu ngi noonu nee na ginnaaw bi tamit sëñ Tuubaa daje na ak wa laqiya baxda zalika ak seexu Sidiya ibnu as sey ibnu as seyxu Sidi Muhammad ibnu as seyxu Sidi mu ne ginnaaw loolu sëñ bi gisante na ak Cheikh Sidiya mi nga xam ne mooy doomu Sidi Muhammad muy doomu Cheikh Sidiya Muhammad bi mi nga xam ne moo joxoon asamara wirdu bi nee na Cheikh Sidiya defal ko ijaasa ci seen wirdu ginnaaw ba mu ko waxee ne ko innahu ahqqu min bidaalik moom sax mu gën a ci moom loolu borom minnahul miskiya te mooy alalaam mahamad ibnu abdullah ibnu ubayd rahman al alawi sanqiti nee na kama raaytu bi xattihi ni ko ma ko gisee ci mbindam nee na sëñ bi sax na fa ñoom sax na fa ñoom ab diir mu ne wal wirdi yi nag yoxtihi li muridi yi ustamil wirdu xaadi woowu sëñ tubaa daan ko jëfandikoo ba noppi daan ko jox muritam bi mu ne sëñ bi tamit ma ngay wax ci paas beneen paas ma ngi wax ci beneen paas te mooy paas soixante cinq ma nga naan loolu ci la nekk sax paas paas soixante li ma doon wax sànq paas soixante cinq la nekk soixante quatre soixante cinq ci la li ma doon wax sànq nekk damaa jub na soixante cinq paas soixante quatre soixante cinq li ma doon wax ci la nekk nee na sëñ Tuba dafa yoroon wirdu xaadir wirdu tijaan wirdu saadili dara ñëw ci loolu waaye nee na wirdu wu ne sëñ bi dafa amuloon kursu boppam kon sëñ bi daa amoon kurus goo xam ni wirdu xaadir rek la ko daan la ci daan wirdu wa kaana kullu wirdin indahu lahu subhatun laa yastaxmilu fiha xayro nga xam ne wirdu xaadir rek la ci sëñ bi daan wirdu wa aksaru maa yox fii li mu rëdi na awalan arwidul xaadiri wa tijaani li ëppoon ci mu daan jox taalibam yi mooy wirdu xaadir kon yaakaar naa foofu loolu la borom téere boobu di wax te mooy Muhammad xam kon gis nga sëñ bi mi ngi noonu jël na wirdu xaadir jëlee ko ci baayam baayam ñetti anam yi mu ko am yëpp day delluwaat ci Cheikh Sidiya mu mag ma mu jëlee ko ci Askamara moom itam day delluwaat ci Cheikh Sidiya mu mag ma mu jëlawaat ko ci Cheikh Sidé Baba moom itam day delluwaat ci Cheikh Sidé moo tax Cheikh Sidé moomu sëñ Tuubaa da koy boole ci ay sëriñam fu mu koy tuddee seyxu naa lay wax seyxu naa lay wax parce que daa bokk ci ay sëriñam ci bi muy jël wirdu xaajar waaye sëñ bi ginnaaw bi mu amee silsila bii ba noppi nag daa amaat beneen silsila bu gën a gàtt te mooy daa gisanteeg Cheikh Abdou Khadre Jilaani Cheikh Abdou Khadre Jilaani joxal ko wirdu boppam nag moo tax nga gis feneen ci geneen xasiida mooy xasiida gi mu sëñ bi tàmbale yaquudu ahmadul faqir jidda attubayu alxaadiri wirda alhamdulillahi ala kawni xadim li xadrati alxutbi almukaram alkarim foofu da nga gis sëñ bi di déclarer jaayante gi mu jaayante si Abdou Khadre Jaayante directement ci xasiidaam gi tàmbale yaquudu ahmadul faqir jidda attubayu alxaadiri wirda loolu Cheikh Mahamadul Bachir wax nee na Ahmed mi nga xam ne daa lompoñ lool te di ko jóg Touba te yor wirdu xaadir nee na maa ngi sant yàlla ci nekk gi ma nekk serviteur u xadra xutbul mukaramil karim te mooy sunu sëriñ bu tedd ba bi nga xam ne sërif la li sayxina al musharrafil jilaani laa saale indallahi daa ridwaani ginnaaw ba mu sant ba mu jullee ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam la fa loolu daal ni haasa uyin yama suuri dayn billahi rabban xaq xoqa bi sanaay bis ne ko tey daal yëg leen ne man maa ngi gërëm loo yàlla gërëm naa yàlla muy sama borom def naa lislaam muy sama diine di sama yoon def naa yonte bi muy sama yonant di ko yàlla yoon ci man def naa téere bi muy sama téere def naa néegu yàlla bi muy sama xibla def naa xaqida xaqida sanu si sërif muy sama xaqida waaye nag maa ngi ci tariqatu sarif al jili maa ngi ci yoon wi nga xam ne mooy yoonu Cheikh Abdoul Khadir Jeylaani lii sëñ bi mu ko wax ci atum 1310 ci gàddaay bi ci gàddaay bi ci la ko waxee kon sëñ bi mi ngi wax kon di déclaré aju gi mu aju Cheikh Abdoul Khadir Jeylaani directement directement mu ne askuruhu sukkuran yudoomu abada ala taalluqi li xurwati lhada la ko jiit nee na bi xurwati say xillite la atruku awraaduhu maadaama xaqlitiku mooy naa ci buuma seedu sëriñ bi nga xam ne du ma bàyyi ay wirdam mukk li fekk sama xel bi nga ànd ak man maa ngi sant suñu borom sant ko sax ci aju gi ma aju ci alxulusul xudaata mooy Cheikh Abdoul Khadir Jeylaani nga xam ne nee na lii maa ngi ko wax ci atum ama salaasa miatin wa xasrin min baxdi alfin xultu saafil jahri fii rajabil muhadim lay moo ni fii fii watani Touba bilaa taxmini nga xam ne Touba li sëñ bi waxee lii ci atum junni ak gis téeméer ak fukki ak ak fukki at ci weeru rajab wax ci la sëñ Touba doon wax lii moo tax mu jaayanteeg Cheikh Abdou Khadir Jilaani naan ko yaa cheyxana yaa xawsana yaa xutbana yaa baxdana bal kullana yaa xibbana haa innani mubaahim laka wa xaadimun laa tax laa taxrim ni fadlaka yow sunu sëriñ yow sunu xutb yow sunu xaws yow sunu lenn yow sunu lépp sax yow sunu soppe ah yëgal na kat maa ngi nii man sëñ Tuubaa di jaayante yow di nekk sa serviteur kon bul ma xañ sa ngëneel kon gis nga fii sëñ bi dafay jëlaat wirdu xaadir directement ci Cheikh Abdoul Xaadir Jeylaani kon naa yem foofu ba jotaay bi di ñëw incha allah ma jàll ak yéen nag sëñ Tuubaa fi mu jàllaat ci wirdul xaadir incha allah wasalaamu aleykum